yow ñu mel ni mungol yow. yow yaay mëngal eh, ay yow yaay mëngal. yow yaay mëngal. aywa eh, nga piri nga piri. yow xam nga ambiance. amu may la ambiance. waaw Fallou Bongo. Fallou Bongo bangal nga. kat say ngay day. Fallou Bongo bangal nga. ngal noppi nga de. maa ngi gën a pare fop. ko toj sa ndey ma xam ne. waaw baay yaa ngi yaa ngi bokk golo gi de yaa ngi bokk golo gi de. ba ngeen si jàmm ba ngeen si jàmm baax xam naa tey man dama leen di ziaraat waaw di doon asalaamaaleykum waaye ci sama gars yi waaw gars si jàmm waaye naka mu bàyyi waaw ma wax noonu nag waaw bu dégg wax li ngay wax nga mooy xaw ndaw ma naa sa si naa mm-hmm. baaxul ñaaw xale bu ñaaw xale bara baax jaxaw yaa fi ne mag ji lii mos a am jaxaw jalone bi en dégagement eh eh eh Saint-Valentin loo xam. man de Saint-Valentin ma kenn. lu tax nga ni Saint-Valentin ak kenn. ndax Saint-Valentin ba mu desee 15 jours. kaay ni Saint-Valentin. ku ma taxawal jigéen bu ma taxawal non dangaa ñaaw suñu diggante mënul nekk ku ma taxawal non non non non non dama dem ba mujj gi sama xel bi dafay jëpp a ñëw quoi waaw. xale jigéen ñi daal da nga ñaaw looloo tax quoi ah, munoo ànd ak kenn. loolu lan ma wax da nga ñaaw man la laa ñaawee gis ngeen jantal ma meen bu toll na man. gentleman wala gentleman nan koy waxee gentleman wala gentleman <laughs> gentleman bu toll na man ah, ngeen di ngeen di ngeen naan ay dama ñaaw ah, kon gars yi jàpp si bu dee bu dee def ma ko orange ma ne jigéen ñi ko bëgg ma ànd ak yow àndal tax na ngay jooy kon gars yi jàppale leen ñaaw boog sonn na de